وراشقنا ومولانا من السائدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجهرنا ما كان في تلاوة من ساوي والنسيان أو كلمة أو تاقير عرف أو تقديم أو تاقير أو زيادة ونقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو سكن أو تعجيل إن تلاوته أو كسل أو سرحة أو سيق لسان أو وقف بخير وقف أو دغم بخير مدغم أو إزهار بخير بيان أو مدين أو تصديق أو همسة أو جسم أو إهراب بخير مكان فاكتبوا منا على تمام والكمال والمواثب من كل أعلان فاغفر لنا يا ربنا يا زيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضلا من خروم أقن معادنا قوم الأعداء والقلب واللسان وابلنا لنا به خير وسار بسار والأمانة ولا تقرب لنا بسر التقوى ورد الله وتقيا ابنها والنبهنا قبل المنايا أن نعم قبل قبل سلام من آمين من هذا قبر أنزع المنكر ونكر ومنك لديدا وبيروجنا يوم بعث وهرق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويزير كتابنا ويسخ الميزان على بعض الصلاة وثبت أقدامنا وسر واستغنى وستر جنا ورزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقاء يدين أستجب دعانا بأق توريت والإنجيل والصبر والفرقان احتنا جميع ما سانا به في سر والأحلان وسدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحيم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السرعات والبرهان برحمتك يا رحمن الرحيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات وسكراكم وتقبل منا إنك سميع عليه وتب علينا إنك تواب رحيم اللهم زدنا بسنة القرى وكرمنا بكرامة القرآن والبسنا بقلحة القرآن وعمنا فينا بها من كل بلاء دنيا وعافنا بالآخرة حرمه القرآن ودخلنا جنة من القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد باقي القرآن اللهم يعلل اللهم يعلل القرآن لنا في الدنيا آخرين وفي القبر منسان وفي القيامة صفيان وعلى شرات نور وإلى جنة رفق وبيننا وبين النار ستر وإجابة إلى الخير كل دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بهناية القرآن وناجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا جنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا أصل فضل والإحسان اللهم أرسلنا بكل حرف من القرآن وطن وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جسانا اللهم أرسلنا بآلف الفتن وبباي بركة وبتاي توبة وبساي ثوابا وبجيم جمالا وبأحيك متن وبخاي خلانا وبدال دونا obe sayi sakana obe rayi rahmatana obe sayi sulfana obe sini sanahana obe sini sifa obe sadi sidakana obe dayi diya obe oɓe taharata obe sayi sarfana obe la hayni hilman obe la kayni qina hana oɓe fayi fala hana la khafi qurbatan oɓe kafi kufayatan oɓe lami lutfan obe mim mawzatan obe nuni nuran obe wayi wuslatan obe la hayi hidayatan oɓe lami alif laqana oɓe la yayi وصلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرانا ونور ما طلبناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا من ولا أموات أجمعين آمتهم وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخشل من قتل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخشل من قتل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخشل من قتل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ألف لام ميم نما ولا توجد له الله من كل كريم يا كرم من فار لو تكن أسلم لو كل كريم ولا أسلم لا سان لرمان وجاء بالشكر بلا كفران تك في ثاب ما نرى أجيب بجاه المصفى خسائد وشعبي لي جملة مقاسرة لك خادم رسول أعوذ بالله السميع العليم من شر إبليس الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته أجمعين wa man tabiahum bi ihsanin illa yawmi diin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci ne ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi saaxibul fadila wa imaamu suyuux al cheikh Mouhamadul Muntaxa al Bachir ibnu cheikhul Xadim di ko ñaanal mu yàgg fi lool ti wér. kii di wax ak yéen nag di Ousmane Seck ndongal borom daarul moxti di waxtaan kat Serigne Touba waaye daal li ñu ci sànni ci ay kàddu mooy. Euh, muy jëmm ji nga xam ne moo woote bis bi muy jëmm ju baax di ab murit euh, ndax it ab murit mooy ki nga xam ne wax na Serigne Touba ne ko aslamtu nafsi ñu mën a seede ne ab murit la mu jël léppam am na feneen fa mu nekkoon mu bàyyi ko ñëw ci Serigne Touba te wax na ci boppam ne Serigne Touba moo ko wool boppam depuis ba muy nekk tout tànk da daan Serigne bi daa ko daan feeñu di ko woo ci boppam. ba bi muy dem wax na ne di jébbalu ji ci Serigne Saliou euh, euh, bàyyi jës bu mi mu àndaloon mu ko doon seede waxal na boppam ne millions yi mu yoroon waroon naa toll ci onze million mu jaay ay puuram ak léppam ñëw ci kër Serigne Saliou daan ne ba ma àggee ni ma Serigne Saliou daan wooye naan ma Ibrahima borom ñaan kaay ma jox la ñaan bu ma Serigne Saliou waxee loolu ma xam ne mooy Serigne Touba bu ma ko waxut ma dellu nee na bi ñu dikkee ñu ne leen Serigne bi daa tëji daa ñu toog fa ban julli tisbaar ba pare. sëriñ bi bi mu ubbee moom la njëkk a woolu bi mu agsee sëriñ bi da ko jox loxo daan ko Ibrahima ngoom borom ñaan kaay ma jox la ñaan nga xam ne kon la ko sëriñ Touba doon feeñu di ko ko wax sëriñ Saliou dëggalaat na loola. doonu sëriñ Saliou nag doon gum doon sëñ moom sëñ ko waxal boppam ndax sëriñ Touba moo waxoon ne Saliou sama dooma keroog bi mu ganee jamono it njëkk muy ganee jamono wala bi mu ganee jamono sëriñ bi bind na ab leetar wala lu jiitu loolu sax danañ ci andi tuuti muy. sëriñ Abdul Xuddus mi magam eh, nga xam ne magam la dafa teel a wàcc liggéey soxna Faat Jaxate jur ko sëriñ Abdul Xuddus keroog bi mu wàccee liggéey wax nañ ne soxna Faat Jaxate daf doon eh, eh, tuur ay rongoñ sëriñ sëriñ bi laaj ko ne ko loo ci jublu mu daal ne ko damaa xam ne doomi sëriñ Touba jii dem moom jooyut boppam waaye doomi sëriñ Touba jii sëriñ Touba ne ko dama bëgg laa fàggul koo xam ne bu ñëwee day doon man may moom. bu ñëwee day doon man muy may moom nga xam ne keroog bi Serigne Saliou gënee jamono dafa bind ab leetar jox ko Sëñ Amsatu Jaxate wax leen ne leen fu mu mokkale alxuraan na ngeen ko ko jox yaakaar naa Sëñ Amsatu Jaxate bi mu dencee leetar bi daf koo xaw a fàtte Serigne Saliou bi mu demee ba mokkal alxuraan ñëw ci moom laaj ko ne ko amut loola Serigne Touba batale woon ci man mu xaw koo fakk sëriñ bi laajaat ko mu xaw a mu ne ko sëriñ bi joxu la woon ab leetar ne la ba ma jox ma ko nee na Sëñ Amsatu Jaxate dafa keroog dafa daanu ab jël Serigne Saliou nag yërmande ji ci moom amay faral di wax ne yërmaande ci si moom donn gu Serigne Touba donn yonent bi ak liggéeyal gum liggéeyal yàlla loolu moo waral yërmaande dajeeg Serigne Saliou nañ ko xool bu dee baatu bismillahi rahmaani rahim bu nu jëlee bismi muy tàmbali dañ ne Cheikh Moustapha moo ko def waaye boo jëlee baatub laahi Cheikh Mouhamadul Fadlullahi ku ne dégg na ko Fadlullahi mooy taxawee baatu laahi ci boo ta boo tojee bismillahi rahmaani rahim boo nee arrahmaani day dal di tombeeg seigne Abdou Lahad ku ne xamna ne jumaa ji dañ daan taal cigarette ba ci buntu bi ñu doga fay dugg ci bir kon ki ñu tagale ak cigarette tagale ñok football ak mbollem xeet yi xeeti fay yi mo nu yërëm fi ci aduna kon mo taxaw batou rahmani waye batou rahimi ki ko taxaw moy seigne Abdou Khadir ndax ku ne xamna ne deg nga lu way gàtt gàttub deg deg nga elimani tay ak ëllëg kon mo nu yërëm bu ëllëgee mo taxaw turu yàlla woowu di rahimi waye nak bo ne bismillahir rahmanir rahim lo tay tek muy alhamdu muy baatub cant kon nag baatub cant sëñ Saliou woo ko fi andi ku ne dégg na sëriñ Saliou borom cant gi waaye li tax sëñ Touba yéeme boo nee alhamdulillahi ngay tegaat doomi Cheikh Mamadou Fadal di Alaaji Baara ñëw taxawaat baatub lillahi rabbil alamin nga xam ne kon bi sëñ Sidi Moxtaar toogee baatub rabbil alamin la jëfandikoo ba tax mu ne bëggatuma dégg murit ak tijaan na ñëpp nekk benn bopp ndax ñoo bokk kaaba gi kon rabbil alamin jooju suñ borom tudd sëriñ da koo exploité ci yoonu sëñ Touba waaye boo nee rabbil alamin da nga cay teg arrahmaani muy Cheikh Mouhamadul Muntaxa ndax yërmande ci moom ak mbégte mi ci moom moom itam foofu la daal di taxawe kon donn gu mu donn Cheikh Abdou Lahad mi ko yaral boppam ak donn gu mu donn Serigne Bassirou ci mbégte moo waral moom muy muy muy njariñul tey ak ëllëg boole koog di yërmande yi tey jii nga xam ne moom sunu yërmande la ndax moo nu yërëm moo nu boot waaye Serigne Saliou nag liñ ciy wax mooy yàlla dafa dogal moom ci ak nekku xilaafaam ci la ñu amee li li ñuy wax yërmande ci lañu xame li ñuy wax ak cant waaye yërmandeem dafa daj kàpp ndax wax nañ ne benn bis mas na toog fii ba mu yàgg mu daal di jël ab martu bu ndaw jox góora wala da koo wax ne ko génneel martu bi mu génnee martu bi mu laaj ko ne mu wax ko ne ko duggal ci oto bi ñu dugg ci oto bi ñëw ba ci pàkki saami ñu ñëw ba ci benn miir bu nekkoon foofu wax nañ dina ko tojal fii bi mu tojee ci kër bi fekk muy miir bu bees ab gunóor génne ca naaw mu daal di wax ne maçon yi de ñoo ko fi tabaxaale waaye booba ba léegi mi ngi yooxu naan Serigne Saliou kaay dimbali ma ginnaaw nag mbooleem nosub mbindeef yi ci loxob sëñ Touba la ko joxoon te tey jii maa fi sëñ Touba loolu moo waral lépp lu nekk ci àdduna man mii maay sa dimbal tey ak te ku ne dégg na ne Serigne Touba moo wax ne simaamul a asri la dallahi fii yadi ginnaaw mbooleem nosub mbindeef yi mi ngi ci loxoom loolu moo waral képp ku ko donn nag dangay daal di man a taxaw taxawaayu goog ya Serigne Touba taxawoon benn si tam wax nañ ne jëm na njurul di dox ci àll ba ci bi muy dëkk bay jum njurul mu dégg picc yi di sab mu wax safoor bi defe naa góor la laaj ko ne ko ndax xam nga lu picc yi mu ne maanaam barke tàbb gi ma tàbb ci biir àllum njurul moom la njanaaw yi yëpp yëg ba tax ñuy sant yàlla ci ñëw gi ma ñëw ci ci ci àll bi fekk si leen fi loolu itam day daal di teguwaat ci yërmaande ju mu am ba ñëpp xam ko wax nañ ne itam mas nay dox ci àll bi ba ci yàgg am ndaw loo xam ne ci biir ñax mi la ko gis mu wax safoor bi na taxaw mu taxaw mu daal di dem nuyoonte ak moom bu ma juumul yëkkati na dara ci addiya jox ko tàllal mu ñaanal ko bi mu duggaatee ci oto bi itam mu laaj wax chauffeur bi ne ko ndax xam nga kooku mu ne ko déedéet mu ne ko yónnent yàlla euh, Suleymaan la nguurug sëriñ Touba gii nag képp ko dégg mu masoon fee ñëw ci jamono di nit ku baax ñaanaat na yàlla ngir dellu si ba dajanteeg sama ay man Serigne Saliou kon nag loola lañ ciy xamee mooy donn gomu donn Serigne Touba zahiran wa baatinan kera bi ma koy martial itam dama ko waxoon ne ko tey jii ma jooy fii jooyi xol ngir yàlla euh, dama ne ko woon xoqal bu kaa u teem a jooy ba faatu. Sab sang sab sak dem na moy ku yaatu kat ba daan woré té wor ña jitu mo xey nuyoo si mbacké ki du gestu borom yor mande ja borom tawhid ya ku mandu won ka dem na moy sun waja juma yi tuubaa joy na sangu mbacké daara yi joy nañ mbeur ma mo am barké ci eutti diiné yaangi joy sun waja ñeñ bokkalul diiné di joy jëmam ja bisub ak ndol makka rek del si ku jang taarix xamne ko ka del si don non na ndol makka don non na bayam don non na ngir yu reey ya mo don dal di koy wax ne ko nag ci alquran téere bu mag ba jooy na mbër ma ko daan di jàng dem na xasiida jooy na mbër mi cheikh saalixu billahi xel koom jaaga tey mu yuux xayam ga tey mu jooy ba ser baatam ba borom joowaan ga dem na fekki baay ba naalam yu rëy yëm ni saroon fa Tuubaa jooy nañu mbër ma maa ko yéem bisam ba bis ba mu ne bëri te wuy ji yàlla ñëpp bëggoon a faatu wuy ji yàlla bisub keroog ñëpp a fanaan Tuubaa naa di wër barab bay jàng alxuraana ba bët setee ñenn ñi xew-xew ba daw wut si Touba waa foroon barab ba di jàng alxuraan di ñaan ay xéewal di jàng ay xasida moo ko woomal. altine lañ ñaanal murit bu mag ba mbooloo ma mel ne soq ngir bisam la dale biir jurbeel ba weesu kawlax ba daarul moxoti ñëpp a daw si tey lox kenn tëlatul kam àndaloon ba muy ñëw xanaa xalaat sang ba cey bii xew-xew inna lillahi laay saxoo ba faatu kuy dund faw faatu lil aayaatu saa mbër mi laay gis ak demam ba faatu ngir moom may lool fu ma toll cey naa saalixu yaa ma wéetal saa yi du ndof dem gi moo ma tiital mbàkke li tax sa dem gi metti ñëpp yaa mujj toog ci doom yi yaaroo ñëpp yaa tax ma sos daayira ñëw jébbal yaa tax ma toog fi yow nga wax ma wax la màggal yi yaa ko yeesalaat ak gàmm sa ndaw du xiif fu mu toll day am jàmm yaa tax ba ndaw ñi mel ne man di sant ngir yaa ñu may lool faw dañ lay sant ma jéem a lim lim sañ ci ci daara ngeen xam ne moo di doomi doomi jaara lim def ci ay daara li muy bari bari jàng ak liggéey ak julli rek la doon xare Cheikh sali way ceeba mu tooy te yaatu ku bëgg a womal na nga taxlu yaatu mo dàq bay ci rew mi moy Kang foré am jangaleem amul gëddee ka dóore darul khudus darul salam Touba belel umul khura tayba sëriñ bi ya deug jannatu mahwa daru muati ay borom Touba xel kom daru wahab amo moro cey daru manan daru alimul khabir daaru naayim ak ndindi mbàkke yaay kabiir ciy daaru rahman daaru tanzil lay bége xosnul ma ab mbakke osmaana lay bége lim def njurul xabbaan ba ndookaa leer na ngot ba mbuur ñaaroo geloor lii wóor na yàlla na yàlla buur bi yokki leeram taas ñu ci barkeem yàggal fii doomam kon eh, lii ay bayit la woon yoo xam ne dama ko defoon ci moom ngir yërmaande ji mu amoon ci moom gis nga dongay laxasaa yi nga xam ne nekkoon nañ ci këram mu leen di tarbiya xaadim jaxate sama xarit la nee na fa la ko fekk wax na ne benn bis da leen a wo wala boog li mu koy def bari na da lay woone la kuy sa ndey kuy sa baay ak ban dëkk nga bàyyi ko nee na benn bis mu woo leen ne leen saa bu ngeen gisee ma koy def damaa xam ne am naa ciin ak yëg waaye kenn ku ci nekk bu ne laa jàkk maa la gën a xam sa ndey gën laa xam sa baay biñ lay jàpp sa loxo di la indi ci daara ji yéere ba nga mujj teg yéere ba nga njëkk a teg ca walis wa yeneen yéere mën naa la wax nu couleur ba mel te fàtte ko dégg nga nee na itam mas naa ñëw njurul toog ci ak njoowaan fekk njoowaan gi dafa dagg jëwriñ ji jël njoowaan gi ni mu daggee ba genn wëñ moo ko mu mu yëg ne sëñ woo ngi ñëw mu jël njoowaan gi daw denc ko ngir bu ci sëñ bi toogee mën naa daanu sëñ bi dikkee daal toog ba yaa mu ne sama njoowaan ñu ne ko njoowaan ga day eh, daa yooyu mu ne ana sama njoowaan ga andil leen ma ko ñu andi ko mu daan ne wékk leen ñu daal di wékk jëwriñ ji moom ñoom nee nañ bi ñu toogee bu ñu toogoon ci nen du toj ngir bañ nañ sëñ bi daanu te xam nañ ne mm, boo muytu dana dagg nee na sëñ bi ne takk leen ñu daal di mu daal di cay toog bi mu toogee toog ba mu yàgg daa daal di jël tànk yi di puus boppam di njoowu di dem ak a ñëw nee na di njoowu dem ak a ñëw ba ci am ne tàllal leen ma ñaale ñu laa da koy ñaanal mu jóg dem wax nañ ne bi muy dem bay génn bay tolloog bunt bi ci la njoowaan gi dagg loolu nag li muy xamle rek mooy nituk Serigne tuubaa wala ku Serigne Touba falal boppam du mës a daanu ci adduna Serigne bi nag nanu xàmmewaat li mu bëgg xam li mu bañ ñu jéem a jaar ci li mu bëgg moytu la mu ra la mu bañ isil muridu abada xayra rida rahmaani xay su xasada am murit wërta soxla woo lu dul ngërëmul yàlla fu man mën di jublu kon nag xam naa ginnaaw guddi la waxtaan wi dañ koy tënk ba guddi waaye daal sëriñ Ibrahima mii moom mën na maa seeri ci moom itam lu bëree bari ni ko ñëpp ma ne comme moom ab ñaankat la di dimbali ay doomu aadama andi naa fi ay nit ba tàyyi mu dimbali leen te néewu ma danga may jox nangam wala nangam loola itam yàlla rek laa koy seedeel ma sahid na illaa ma na man borom daarul moxti laa gëm moom rek laa yakaar te la mu am doy na ma waaye nag fu ma gisee ko baax man na maa teg sama loxo ne kii dafa baax ndax man jàpp naa ne fu ab sëriñ nekk sama sëriñ lañ la dénkoon muy maam Thierno waaye nag fu nit ku baax nekk itam mën nañoo xam ne sëriñ Touba la fa nekkal sëñ Ibrahima fii mu ne sëñ Touba la fi nekkal doy na sëkk néegu bi yàlla bu toll nii nga tabax ko ba mu àgg nga jébbal ko sunu borom subhanahu wa taala xalifab sëñ Touba bii di sëñ Muntaxa te booba sëñ Sidi Muxtaar fi ne moo ñëwal boppam yónneel boppam ñu ñëw jullee ko tey jii sëñ Muntaxa di fi sëñ Touba te wàññiwu la lenn ci sa tawxiit sa diggante euh, sa borom loola nag ak mbaax la ndax ku tabaxal yàlla kër kër yàlla tabaxal la ay cënd ca àjjana kon ñoo ngi leen di sant yéen ñi nga xam ne yéenay mu waa Mouride info kon ñoo ngi leen di sant di leen ñaanal tawféex te di ñaan lii dem ba nekk ay télévision ay télévision. ndax lii ngeen di def lu am solo la parce que di jël ay image wala ngay jël ay waxi yoo xam ne jëmut ci lu dul diine di ko tasaare ba àdduna di ko euh, seetaan wala àdduna di ko dégg ñooña liñ leen war a ñaanal mooy ngeen dem ba doon ay télévision parce que bari na tele yoo xam ne si ne ci lu araam la ñuy xëy di ca gontal ba waxee ñu ne sëñ Tuubaa lañ gëm loolu du ak murit